ko yoroon di ko làbbanti ba yàlla dogal démb ginnaaw timis la nelaw bi mu nelawee ma defar ko xam ne xale yi réeragunu may bañ ñu bañ a reer daal ma dal di koy jekkal ba mu jekk jekkal cër yëpp dal koy muur noonu bàyyi ba ñu reer ba pare ba sama mag bi julli timis ba julli gee ba pare ma ma dem ni ko kaay xool soxna si mu ñëw ni ko mu ni ma ah koy maire bi moom daa noppalu lii la mm-hmm. man ba ma juddoo ci kanamam mooy sama magu yaay maa gis mu am góom mm-hmm. musuma koo gis mm-hmm. léegi nag nee na dagg na nañ sikkim bi dagg na nañu ci baaraam bi tànk yi dagg ci baaraam bi loxo yi yàlla seede na ni amu ci da koo da koo amul sax mm-hmm. man maa ko jekkal góor ñee ko jël ci sama kanam ñëw indi ko ci fii denc ko fi teg ko fi ci guddi gi ñibbisiwaat ci guddi gi léegi nag bi ñu ñëwee lan ma ni ndax maire bi dafa amul góom man leen ma gisuma ci góom ñu expliqué man leen loolu moom mënta nekk musu ko daf ko amul amu ko pour sikkimam bi tànkam yii amul góom. Mm, ci sunu maam mu wàcc liggéey bii ci guddi ñu andi ko fi bi ñu ñëwee ñu dugal ko ci margo bi bi nu xëyee ma ñëw di ko génne man maay ki jàpp ci palaat bi biñ koy génne ñu teg ko biñ ko jëlee ñu jël ko ba indi ko fi ñu koy sange ñu teg ko fi ci laa muri kanam gi di ko siyaare ma gis sikkim bi ñu joxati ko mhm. ma ñëw ci nijaay mi nga xamante ne mooy doomam moom moom moo mujjee nekk ak moom ma ne ko waa nijaay sama maam dafa dafa am ab góom mu ne ma déedéet kon de xaw ma ko kon de sa yaay waxuma ko. Mm-hmm. ma ne ko ah maam de sikkim bi xam naa gaañu na ci. Mm-hmm. bi ma ñëwee ma def loolu may ne may ne ci enquête boobu. Mm-hmm. ñi doon sànq bi nu agsee. ma mënul leen ma leen xam naa fii dafee gaañu woon ndax maa leen doon jàppale pour ñu sànq ko. ñu ñu laa dem ma lii mu naa mu ne ma su fekkente ni bokk na li ak li fi daan am. Mm. soo demee ci loxo yi di ngeen di nga gis ñu dagg ko. ñoom ñoo la wax ñi doon sax ñu wax ma loolu. Mhm. ma ne kon de loolu loolu lu doy waar loolu. Mhm. ci laa muri loxob ndijoor bi. Mhm. gis juróomi baaraam yëpp di naaj. ma dem ci tànkub ndijoor bi. gis tànk bi di naaj. ma ñëw muriwaat euh, loxo bi loxob càmmañ bi. gisit moom it muy naaj. la ma ca gën a metti nag mooy loxo bi nga xamante ne dañ koo takkan moom ba mu yegg. niñ ko takkee ni ñu ko ni ñu ko takkee fekk mu tikki fii ne benn loxo bi dafa lemu te biñ ko doogalee dañoo takkan dañoo dañoo dañoo tàllan cër yëpp takk ko waaye benn loxo bi moom da dafa fekk ni dafa dafa dafa lemu lañ njëkk xanaa mooy ñu janoose ko ñu faj ko parce que lii moom lu jara faj la ndax waxuma la ji jëmm jëmm ji nga xamante ni moom la yàlla dogal moom la dogal bu wàcc ci moom ndax koo xamante ni 1904 la juddu woon booy seeti atam mu ne ci téeméeri at ak fukk ak juróom-benn jeexan tàkk seer ci ci Cheikh Ibra lu mel ni war koo mën a dal te fajunu ko rawat nag dëkk bi nga xamante ni mooy dëkk seriñ Touba bi ñu war ko téye sellal ko mu am ci kon mi mbir day mbir mu jara topp day mbir mu jara saafara